mbokk yi seetaan ñu ngi am mbégte àndaat ak yéen ci seen euh, spécial découverte ak koor gi euh, ki nga xam ne nag euh, moom mooy sunu invité invité tey moom mooy Omar Ndiaye Angloma di chargé de mission ci présidence de la République nekk ci membre di membre APR bu Mbacké di responsable politique alors tey nag ci koor gi la ñu nekk Omar naka nga euh, vivre ci Ramadan deux mille vingt deux bi gannaaw boo nuyoog ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan. waaw muy sant yàlla di sant yonent bi di sant Sëriñ Tuuba di sant sama sëriñ Cheikh Abdoulahi Mbacke borom dër bi. di siyaare tam sama sëriñ sëriñ mood Abi Mbacke yàlla yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér ak njabootu Cheikh Abdoulahi Mbacke gépp di wax ni ñu ngi ci weer woo xamante ni weeru sell la di weeru yërmande di weeru koor donc ñu koy woor di ci ñaan suñu borom yàlla yàlla defal ñu jàmm. Euh, li ñu ci woor yëpp yàlla nangul ñu ko euh, mu nekk koor goo xamante ni koor gu suñu borom di nangu lay doon nekk itam lépp luñ ci jaamu yàlla suñu borom yàlla nangul ñu ko te ñi ci génn àdduna tam suñu borom yàlla tàbbaleen aljani fi daw si ci barkirant bi. alors euh, Omar donc gëj na laa gis ci ay fan yee ci lu ay ñaari ay bés mu mel ne defoon nga fi benn sortie di yëgle ne. ce que bokk ci benn ci APR tey la gën a fës euh, tey nga koy gën a fësal mel na ni dugg nga ci am na liggéey boo ci tàmbale tamit ndax mën na xam foo tollu jamono ji waaw xam nga bokk ci APR si di toujours ma wax ni la man APR waxuma bokk maanaam APR bu doon lu ñuy moom damaa bokk ci ñi ko moom donc bokk mooy luñ la boole wala loo bokk ñu bëgg la cee boole mais APR moom euh, maanaam du lu ma bokk maanaam lu ma moom la parce que 2008 ba 2009 Angoloma la donc tey bu ñu demee ba tam ñu ñëw euh, président ca lancé benn euh, kii pour ñu war a def ay su ma frère tam Malick Fall jox ma ay parrain euh, ak ñëw def ay def parrainage bi donc moo tax ma jëyee ci parrainage bi ñu préparé tam élection député yi parce que majorité assemblée nationale dañ ko soxla li ma la waxoon keroog rek daal lay wax man président Macky Sall lépp lu mu soxla Euh, dinaa ko ci jàppale ndax leer na ma ni lépp lu mu taxaw di ko soxla pour njëriñal réew mi lay doon ak lu jëme réew mi kanam. waaw moom lan la la jox jox nga jox na la parrainage rek euh, euh, quota lan la jox bu toll ci ñaata ak foo ci donc boo xoolee Malick Fall jox na ma lu mat mille parrainage donc am na may xarit yoo xamante nii jëloon nañ engagement mën naa cee sitee ku mel ni ay ndongo Fall donc am na équipe yoo xam ne liggéey nañ ci lu am solo tey jii Alika. lii nga tey jii ma daj indi tey moom ànd liggéey ci côté karal ci pël yi donc li ma amoon sol li am solo mooy man li ñu ma joxoon euh, liggéey naa ko pare na dinaa ko jébbal Malick Fall comme ni ma la ko waxoon Malick Fall yóbbu ko ci euh, ñi nga xamante ni ñooy dajale pour parrainage bi muy ku mel ni Mimi Touré donc ñu toog tam bu beneen liggéey boo xamante ni amaat na tijjee ñu nekk ci loolu. mais na pourquoi pas Mbacké liggéey Mbàkke bu ñu nee responsable yi fi ne xanaa kon ma jox ko sama bopp ndax responsable APR Mbàkke fi bopp man la parce que xanaa ab parti ku ko jiite 2009 am ci 4000 waa 9 conseil nekk cabinet président de la république yi xam nga nit ñi dañuy jaawale cabinet président de la république moom bu dee administration moo tiim lépp te man fa laa ne ñeneen ñi fi nekk ñëpp di wax ñenn ñi ay ay directeur général lañ wala ay député donc kon kay ma yóbbu ko ba cabinet ba ma ne ma joxe ko fa ci ndeyu mbi gi <laughs> donc mais naa ni Malick laa war a jox man samay parrainage mais amul benn responsable boo xamante nii fii ci Mbàkke fii yoo xamante nii ci APR man bu may rendre compte wala may liggéey di ko di la ko jox amul fii ci département ci commune ak maanaam a fësal waaw mais damaa wax ne xam nga nu mu tuddati man li ma gëm mooy euh, parti bi fii euh, Sidi euh, ñi ñuy wax lépp tey nañ ne nañ ne kenn génneel carte APR 2009 bi ñu yi ñu doon yi jaay nga génne benn carte maanaam boo xamante war na ngeen man waxuma la carte APR bi ma yor am na bopp lal donc nit mënoo jënd carte APR euh, euh, investir Macky yoof Yoff euh, ak Aliou ñoom Aliou si Cissé jiital ko bokk ci ñu fondé parti bi ba muy nekk dugub ba ni muy nekkee nu mu tuddati cere donc xanaa boo bëggee taxawaat ni nu mu tuddati ñooñu ñoo la war a jiite wala keneen la war a jiitee donc loolu dafay xaw a dafay xaw a dafay xaw a jaaxal nit ñi parti APR fii ci ci commune de Mbacké lu fi waay am na nga ko sante Angloma laa wax parce bu ma xeexutoon ba cere ji am ba ce ba dugub ji nekk nekk nekk dugub ba nekk mbool ba nekk cere bañ koy ñeex yaakaar naa ni kenn du ci ñam dara amul ndax bi ma ciy xeex kenn ku ñemeenu opposé ñi fi nekkoon ci amul fii ci ci département parce que boobu i bëggee mi ngi fi nekk directeur général lu kudd Moussa Sakho nekk nekk ministre ministre ministre plein ay Amadou Fall Nayda ay Penda Sego Diop ay député ñu ñëw élection député ma nekkoon directeur de campagne ñu Galaskaltoom ñu gañee ñu gañee ñu gañee ñu gañee ñu gañee commune bi ak ak département bi donc da jàpp naa ni man benn leader bu ma war a tiim man fii ci Mbàkke ma koy rendre compte wala maa ma defal ak dindi loolu moom gisuma ko surtout sax bu doon ko ñoo xam ni sax bon ñoo fondandoo parti bi ma ku may rendre compte fu a laaj nga ku ni Gallo lay lay rendre compte ci par ci ci parti wala may parrain di ko jox Gallo parce que Gallo bu dee ci parti bi du ma moromam ci parti parce que maa ko ci jëkk te maa ko cëpp doyoo parce que ki nga xamante ni moom parti am ku la xamul du la dugal ci biir cabinet donc bu ma dee rendre compte wala may liggéey man sama bopp la moom Gallo sax man lay liggéeyal ndax deux 2014 ñëw ci parti bi kon bu ma dee bu dee jàppale parti wala mu ci dara bu ci amee dara na ko sante bu ci liggéeyee ba mu avancé danaa ko ko sante ndax si sama la ma fekk. Omar euh, ci sa sortie bu mujj bi euh, parce que dañu jóge ci local yi nga def sortie am ñu ne dafa xaar day ba nga xamante woon ko ne waa coalition benn Bokk Yaakaar gañe na Mbàkke mu ñëw bëgg a pëtaxlu ko waat. Euh, jël position bi mu nekkoon gannaaw bi mu jógee ci défaite parce que euh, maire sortant la àndaloon ñu gañu ko tey da nga bëgg a firndeel ni maanaam yow li lay jox ci parrainage doo ko jébbal ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk comme euh, ñoom la ñu dénk ne ñoom ñoo jiite woon ba gañe du tax doon nangoo ànd ak ñoom boobu seen gannaaw. te ñoom ñoom ñu gañe woon na tamit. xam nga ku ñuy gañe day fekk nga dem compétition tooñ baaxul. attends da ngaa dem élection locale. non attends nan la koo xam nga moor jàppale mooy Angloma ñi treize listes moo amoon Mbàkke treize listes bu amee Mbàkke kon man damaa waroon ñëw nekk candidat te bu ma nekkoon candidat li waa ji doon mbër moomu doon wax neen neen ci bat danaa ci taqrib euh, treize listes yooyu amul benn liste boo xam ne Angloma bokk na ca maire sortant bi tam amul samay kayit nekkul ci moom nekkuma conseil municipal am kenn tam mënta wax ni Angloma wàcc na sur le terrain campagne. kenn mës a wax ni tam def na point de presse ne nañ jàppale Abdou wala nañ jàppale Papisco wala nañ jàppale Gallo fam toog la toog bi campagne bi jeexee parrainage bi président Macky Sall la ah, ah, ki ko jiit ki ko jox woo na ma téléphone déplacé wu naa ñëw sa SEDAF ba lii sama quota jox na ma ko maa ngi koy liggéey dañoo fexe ba gañe mu potax waat ñëw kon tey ñoom xanaa ñoom ñoo fekk si man damaa xeex ba ma Sall gañe ñoom ñu ñëw di waaw xam nga foofu wax naa ko dama koy répété ko répété waat moor man dafa am lu gëm parce que politique bii dafay jeex Abdou Mbacké Ndaw c'est le maire moom lañ investir moom moom moo nekkoon maire Gallo lañ investir man kenn investiru ma man miñ investirul pour Gallo nekk maire campagne lu ma Gallo pour mu nekk maire parce que man li ma jàpp mooy nu mu tuddati euh, euh, damay nekk ci lis daal man mën a jàmmaan ak Abdou nekkuma ci liste du ma xeex luy luy luy luy daane maire ma ko def. mais ki doon conseil municipal est-ce que 2009 4000 voix la am ak conseil ak 9 conseil municipal du nekkul conseil municipal moo ma jaaxal dama ne ba yëf yi jax man laa jàkkaarloo ay treize ay ay treize ay treize liste nga gis moor yow tam yow moor Mbàkke gi boo tegoon journaliste gi fële man ngaa arbitré ku ci ne la nga capable loo mën ak man ba may ba may nekk conseil municipal i bëggee laa jàmmaar loolu ñu jël deuxième am 4000 voix ak 9 conseil donc nekk conseil municipal <laughs> ak ñàkk bañ a nekk conseil municipal man yooyu intéressé te itam jàpp naa ni bu ma bëggoon a nekk conseil municipal yow leer na ni Angloma dina nekk conseil municipal ndax liste yi ñi ko defar mën naa defar liste dem ñi defar liste mën naa nekk seen biir te liste bu ma ci àndaloon mën naa ni bu fekkee am nga la nga am yaakaar naa am na voix yu ma ciy yokk mu ëpp loolu seen boo moytul Macky Sall ñu régler problème yi. xam nga loolu parti poir moo demee noonu tey parti bu amul dara kenn du ci nekk di coow xam nga parti pouvoir nag njariñ la su tey élection député ñëwaat nu mu te ñii bëgg falu ñii bëgg ñu def leen nangam ku ci nekk yëglu mais tey am na parti yoo xamante ni nii kenn tudd leen ndax yoruñ luñ leen di tuddee donc tey. Euh, APR attente ji mag ñi bu leen neexee wax bu leen bu neexee ndaw yi wax donc nit boo sonnee ci dara euh, bëgg nga tey ëllëg nga am ca dara boo sonnee ci dara bëgg nga ña ngi doon àndal démb ak bërki démb am ci am ci luñ ci luñ ci jëriñoo ndax APR Atlantique yooyu ngay wax buñ nekkutoon ni Atlantique ak ministre parce que ñoom ñooñu bi kenn gëmul Macky Sall kenn xeexlewul Macky Sall nu mu tëddee ñoo fi nekkoon dërëm lu nag di xeexal di xeexal Macky Sall donc kon buñ demee ba nga xamante ni ñoom ñoo ngi yëglu am nañ droit yëglu parce que li ñuy yëglu ci luñ moom lay doon ndegam yëf yi moom ci ñi ko ñi ci fekk si ñi ci doole sàkkaa koo xamante ni moo samp yëf yi yow am nga yaakaar ne dina xam nga man politique damaa wax man amu ci lu may xëccoo moor man damaa ne wax bu fekkente ni akulaay taala la ñu wax dama cee marqué samay empreinte damaa wax ni man dama ñëw 2009 euh, am 4 009 conseils ñu ñëw commune ñu gagné 2012 ñu gagné commune bi euh, euh, ki nga xamante ni moom moom parti am tam buñ ko doon laaj ñi xam ci Mbàkke mag sàll bu nee benn dana ca teg angoloma muy ñaar ñaareel bu nekk ci ci nekk ci nekk ci cabinet donc euh, investiture nu mu tuddati liste ma nekk ci am ma ñàkk caa nekk man intéressé wu ma la ma intéressé mooy li nga xamante ne nii moom laa liggéey muy parti bi ba indi ko ci poir bi loolu laa dul bàyyee kenn keneen ku ñu investi nag baax na mais parti bi moom la la coordination saa yu ñu demee ca loola loolu moom laa dul bàyyee kenn di ko jiite ku dul man euh, mais nag euh, kuy politique ku ne bëgg nga maanaam cëru Euh, mbëgg nga cëru te yow euh, munoo politique munoo nekk ab politicien nekk membre APR ba pare nga ne séentuwoo ci ay ñu lay investir yooyu ba pare te yaakaar naa ne président de la république buy waxal fi ne nii actuellement dañuy jàpp ne moment yi ñuy toll kuy gagné rek lay waxal moom moo tax mu nga mu war a nekk koo xam ne day coordonné ak euh, ki fi nekk ba ji ba gagné local yi nga war a bootu ci gannaaw nag. xam nga Sidi foofu da ngay am looy jaawale c'est-à-dire man kuy politique kay wax dëgg yàlla moor. falu nga bëgg man cabinet présidence laa ne am na ñu bëgg a nekk biir cabinet te nekkuñ am na ñu politique ba génn. ba waaw attends attends non dafa naan législative. waaw attends ah, waaw attends compte bi la euh, sama naataango. waaw mais attends ma wax foofu dama ni dama ni. man cabinet président waaw mais ma présidence laa nekk. te ndomb ak tànk googu moo ma gën a lu ma mën am yàlla rek laa koy séddeel ba ma ko nekkee man. investir élection député yi passé man lañ investir woon te maa ngi nekk cabinet président élection député yi passé maag Abdou Mbacke Ndaw ñoo nekkoon ci liste yi est ce que maanaam kooku bu jëwoon tey def la ciy liste wala mu ne dalaa dalaa dalaa def feneen man la patron bay fa mu ma ca def rek man daal li ma dugal mooy naa liggéeyal Mbacke askan wi ka nga xamante ne mooy investir listam lu mu investir du ma ni ko lii nga investir d'accord ma ci wala li nga def baaxul mais tan investir nañ ma ci élection député te néew ma ñu investir ma dañ maa was gis ma point de presse ma investir ma yooxu ma dugal ma ko kon donc nekkul loo xamante ni nii xanaa man lu may xëccu ni nañ ma ko def léegi loo ci lan ci ci ci mooy sa rôle ci législatif waaw xam nga rôle sama rôle ci législatif ay parrainage rek xanaa taxulaa ñëw waaw mais xam nga man ma àndal moor muy politique di président Macky Sall tey bu fekkoon te ni euh, dañ koo gagné amul majorité assemblée nationale nan lay gouverner réew mi kon man euh, la ma ñor mooy président na am majorité assemblée nationale pour mën a gouverner réew mi loolu loolu loolu ma ci dugal parce que tey bu ñu toogee xool ba Macky Sall amul amul majorité assemblée nationale nan la ñuy gouverner réew mi comme nag man mooy sama manton te par exemple euh, dañu soxla majorité assemblée nationale kooku comme ni ma taxaw woon 2009 2000 2000 2008 2009 2012 ba nag nii taxawaay bu gën a taxaw taxaw noonu laay taxaw pour mu am majorité assemblée nationale mais nekkul ni ay liste député ay parrainage bi damaa bëgg ñu ma ci ay liste patron bi na am majorité assemblée nationale ci nuñ ko mën a xeexee ba mu am ko tam danañ ko def. gis nañ Macky Sall di recevoir ay ndaw yoo xam ne ni laaj loo sëñ mais loolu est-ce que yéen <laughs> xam nga loolu xaw ma xam nga boo recevoir boo recevoir xam nga un bon politicien euh, man boo ma di recevoir boo ma recevoir woon palais xam nga ma génn def sama déclaration mais boo amee visite euh, Fatick ñu recevoir la Fatick.

xam nga ndaanaan lu toll ni boo ko doon recevoir tey woo ko Fatick sëñ bi fa ñuy recevoir mais Omar est-ce que euh, parce que bu bu leen recevoir Fatick c'est cadre xam nga xam nga euh, foofu noonu palais beneen liggéey la boo xam ne bokk sa déedéet déedéet xam nga palais dafa am juróom benn saal yi fa waaw moo waaw moo moo déglu maa la rek yow tam sii di palais dafa am juróom benn saal yi fa ne ay salle de banquier ay birino jaata président Macky Sall barki dem recevoir na Moustapha Diop ak wa département Louga bépp pale la leen recevoir recevoir na dem euh, bu nu mu tuddati euh, Ablaye saw Kaffrine gépp pale la leen recevoir man li ma leex dama koo xam un politicien dëgg bu bëgg panno maanaam maanaam maanaam maanaam yëkkatu ko dëgg dañ lay recevoir pale ci bureau patron bi nga génn taxaw ci hall bi def déclaration ni lii laa wax ak moom engagement bii laa jël nii laa koy jàppale loolu laa xam Mor. jàpp ne avant a doole seen parti fantasiro waaw xam nga mi ngi ci xam nga nee naa la recevoir na recevoir na Fatick recevoir na Kaffrine recevoir na euh, Louga mu ngi recevoir le département dina recevoir Palais. donc président mënta dem élection te recevoirul département de Mbacké mënta dem euh, élection tam te kàngami parti bi nga xamante ni jege nañ ko sëñ bi waxut ak ñoom. ma euh, Mor fii dañ toog Daaru Salaam fii yow fekkee woon ndaje ma président bi muy wax dañu maa ngi nuyu sama xarit anglo ma xarit nag fa ngay gisanteeg moom ak fa ngay gisanteeg ñeneen sax mën naa a bokk di sëriñ bi yëf yi moom nu mu tuddati du ma ci euh, cere ji du ci laalo kese laalo laa ci cere laa ci ñeex laa ci mooy maanaam li fa ñuy décider xam naa lañ lay xew xam naa ko donc kon am na ci loo xamante ni moom wax dëgg yàlla man man man gondiwuma ñëw nag ku mën a ñëw ñëwal même président bu la recevoir woon ci résidence sëñ Touba bii sax te nga ñëw te nga ñëw APR dañ koy rafetlu ñaawluwuma recevoir ngim recevoir ñoom laadloo ak ñoom sëñ Mbacke Faye ñaawluwuma loolu mais dama la wax ni en politique ñoom tam suñuy doom lañ di suñuy rakk c'est-à-dire man bu ma sañoon dañuy am benn benn un grand dande man bu mag boo xam ne ci lañ leen di respecté parce que luñ ni ñuy gone gone dirigé nañ ab liste nag dem ci ay kon bu ma demee ba nga xam da nga may recevoir da may recevoir foo xamante ni nii sëñ bi bu ma génnee télévision nationale danañ ma jël ma wax li ma wax ak yow ak li engagement bi ma jël pour jàppale la Mor. politiquement daa avancé wala daa dellu waaw mais xam nga xam nga loolu moor yéen yéen yéen ci yéen a ci yéen a ci war a am xalaat xam nga man euh, politique dama dama ko naa ko sànq dama ci tribul maanaam euh, bi may am na ponkal yu fi nekk yoo xam bi may jàmmaarloog ñoom fii kenn gone gu ñu mën a ñoom fii amul. yow couvrir nga ma ba tàyyi euh, boo xoolee bi ñuy investir si selo def investiture yu njëkk ya bu ma xeexutoon vertu ñii ñëpp di wax duñ bokk maa xeex vertu. ba sigi nii dem superviser loo ñëw superviser ma te pourtant teewul bañ ñëwee li si damaa bàyyi galo mu jiite ko te maa xeex ba ñëpp jàpp ni Angloma dafa bëgg ne candidat moo tax mu xeex lii te pourtant bañ paree damaa jël ni galo na jiite donc man loolu laa gëm euh, euh, li nga xamante ni nii euh, mooy politique ci li ma ci jàpp man waxuma sax ay ay ay électorat politique mais moor samay mbokk ak samay am di jàmm ci Mbàkke gii rek man wax dëgg yàlla loolu rek électorat la di <laughs> yow mii tey lu ma nekkoon ngañ ca nekk kii ma ci nekkoon dana dana dana ci nekk donc élec électorat du loo xamante ni nii da koy dem di ko lijjanti ji man li ma am ciy mbokk am ko ciy xarit am ko ci am di jàmm ci mbàkk gii rek ak samay mbokk yi ma li ñu fi am ci famille rek électorat la waxuma la ak samay am di jàmm ma nekk fi président équipe départementale pendant sept ans nekk fi président équipe nawetaan nekk fi maanaam di ci jàppale SONES bi ñu xam ma bu baax a baax ci sama wërsëg tam li ma ci am maa ngi koy partagé woo maa ngi koy partagé woo nit ñi donc li ma ko wax sànq gone gu mënul dara mënoo jàmmaarloo Iba Gueye nekk mandataire Iba Gueye nekk mandataire ngeen dem élection am 4 millions ak 9 conseils te booba politique bi ni mu yaatoo ni mu yombe nii néew léegi yomb yombi wutoon noonu moor léegi ku jóg ñu abal lépp liste nga dem élection waaw mais xam nga loolu te ngay dem tey boo demoon laaj mairie Mbacké en 2009 ñun bi ñuy ñëw ci mairie bi bit bit sa mairie Mbacké matutoon cent millions tey boo demee budget mairie Mbàkke lu mu gàtt-gàtt àgg na jege na milliard boo demee tey euh, tey boo xoolee euh, euh, tey ji lampe ADR yi mu ngi en ci ci ci ci marché marché à Mbàkke marché Mbàkke bi bi ñu koy réceptionné état ko defar lu mu gàtt-gàtt lam ci def man na mën na milliard ak yeneen yoo xamante ni ay tëli yoo xamante ni yaa ngi wax mais tëli bi jógee jógee jógee ci ja jumaay Tidiane jëm ca ca course ba jamonoy Senghor ba ci jamonoy Abdou Abdou Diouf ba ci jamonoy Abdoulaye Wade kenn mësu koo tëli te président tëli na ko ak yeneen yoo xamante ni nii nu mu tuddati def na ko fii ci ci ci ci ci commune de Mbacké donc li ngay wax loolu daf ñuy jaaxal parce que boo nee nu mu tuddati euh, euh, deful dara Mbacké te élection locale yi Benno Bokk Yaakaar gañe fii donc <laughs> loolu xanaa nu nit du la defal dara nga bañ koo wooteel. mais mais est-ce que ci cadre boobu lan lan def lan lan ko gañe ah kon yow da ngay firndeel ni nu mu maanaam ah, ma maanaam maire beeg ñi campagne ñoom ñoom la ñu wooteel wooteeluñu Macky Sall. ah loolu kay moom mooy la maire bi campagne la mu woote. waaw dama ni dama ni dama ni dama ni xam nga dafa am ñaari affaire waaw dama ni dafa am ñaari affaire yu am. cest diir dire président Macky Sall lim investir def ko ci Mbacké ki ñu def maire mu yor Jidib juge bi rek ay milliards dafa nekk. waaw ah, attends attends attends waaw ma ni waaw waaw déglu waaw waaw waaw déglu ma wax yow tam Sidi dama ni foofu am na ay doomi Mbàkke yu fa nekk di fa liggéey di fa am teraanga donc ba ci daas baak ñoom ñëpp Mbàkke la ñuy est ce ñoom teraanga jooju ñu yor duñ rey duñ danañ fexe ba parti bi daanu foofu teraanga jooju Mbàkke di ko ñàkk poste poste boobu poste responsabilité poste la boo xam poste stratégie la bu ko yóbbu woon jox a gagné bu ko yóbbu woon euh, Kaffrine jox a gagné Euh, bu fekkente nag Sidi Diakhaté rek lañ jël jox ko ni ko jiiteel mu gagné yorul dara mais mair bi gagné lim euh, euh, kii bi nu mu tuddati yi Jijib gi mu yor moo ëpp doole sax poste ministre. donc te loolu président moo ko jox. d'accord naa loolu dama ne loolu politique la. parce que yow mënul la mënul nit mënul laa recruter ngay liggéey ak moom mu nekk sa directeur soxla benn localité. nga nekk ak moom ci localité bi doo ko jàppale. waaw moom laa la wax xam nga dama xam nga dama laa wax ni la xam nga boo nee ma xam nga dama damaa ne damaa laa wax ni la da nga ni ma damaa laa wax ni la dangaa wax ni dañoo gañe ñoom saa Macky Sall damaa laa wax ni la leen campagne budget Macky Sall la oto yim campagne oto yi Macky Sall la carburant bi mu campagne carburant Macky Sall la Macky Sall tam moo ko investir ni ko jiiteel ma Mbacké pour gañ bu ko investir tontu nekk maire attends kon boo nee moom moo moom moo moom moo moo gagné euh, Macky Sall taxul mu gagné fi sëriñ bi loolu tuddati bu fekkoon da nga ni candidat Macky Sall ba Macky Sall tànnoon candidat boobu dañ koo gagné waa ji bi mu ko gagné pare ci la rejoindre APR mais moom budget APR ak moyen APR ak mantu APR bépp lañ jël jox ko kon kay ki ko jiital jox ko ay moyen boo gañee kooko tax nga gañe sëriñ bi yow tam élection locale yi jëmmi moo tax moo tax rek kenn ko wote nga yooyu ay xam nga yooyu ay waxi caaxaan la waaw waaw mais waaw mais mais xam nga xam nga xam nga xam nga siid yi gis nga buñ demee ba ca kanam man Fall Mbaye damay jàpp ni Fall mbay docteur Fall mbay gañe na parce que jëfewel quatrième première participation élection mu jël quatrième am na lu ko wooteel gëm naa ni ab Abdou Mbacke Ndaw Mbacke weddiwuñ ko amaat na 4000 voix yam amoon boo ñëwee yow maire bi gagné am 8000 voix loolu ca kanam lañ koy leeral du lé àgg àggaguñ ci leeral loolu waaw ca kanam la ñuy leeral la ñuy leeral maire bi gagné Mbacke nan la def ba gagné ci mil voix rawee maire sortant bi 4000 voix xam nga loolu man ci sama ci maanu politique sëñ bi mënta dugg samay bopp ña jël deuxième ak troisième nag seen i électorat nangul naa leen ko ah léegi Omar man sama question damaa ngi koy tënk xam naa ci ñaar euh, parce que li ma euh, dese ci waxtu bëreetul benn bi moom mooy que euh, leader bi tax Mbàkke fësalaat boppam ci coalition bi wala ci APR moom ngeen manqué ñaareel bi moom mooy que ne tey suñu demee ba def investiture yi te gisoo ci sa bopp naka nga fas yéene defaat ci élection waaw mais xam nga loolu loolu wax naa la ko dama la ko wax répété la répété waat la ko député ak maire bokkul député boo investir Mor te moo war wala nekk député Mbàkke wala azim mbaa Mbàkke gépp ay toog même bu ko tëdd ca lalam sax na kooku war naa mën a nekk euh, euh, ba pare député te peuple ngay doon bokkut ak maire maire ab dëkk a koy tànn Macky Sall mën naa tànn galo man du faral Gallo damay jàpp ne Mor Touré gën ci Mbàkke donc bokkut ak député député tey bu ñu investiroon Mor Touré wala ñu investir keneen tem leer ma ni population Mbàkke bi ki ñu investir d'accord nañ ci dama koy jàppale bu mu ko président investir itam mu leer ma ni président moom mi soxla majorité assemblée nationale député bii ko doy dama koy campagnal sëriñ bi élection député wax naa la ko ci émission bee passé ak ak maire yi bokkul. élection président mën na laa tànn que ni diw laa bëgg mu demal ma assemblée national dëkk bi tam mën nañoo tànn nii kat dëkk bi Fall mbay moo gën comme député peuple tey boo ko defoon sondage sax dëkk bi dañ naan diw a gën kooku bu boobaa dama ciy ànd. Ah, nan ngay def ak nan ngay ñàkk bañ a def kenn tey parrainage bii duma ñëw. dama ne sama yoon nekkul ci parrainage mais biñ ma woowee ma nekk ci état dama ñëw bi ma Malick Fall moo ma wool boppam fiis parrainage bii kay moom leader boobu nga wax galo jox nañ ko bi ñu dem fi lañ ko bàyyil parrainage bi est-ce damaa woo jox ma bi ma joxul Malick Fall ma woo jox ma donc yëf yi dafay dafa nekk mbir moo xam ne seppi ma ci moo yombul moor yëm yombul parce que xam nga loo loo loo moom <laughs> sepp li ci yombul. loolu mooy gis responsable yu bari dañuy daw làqal bi ci liste nationale professionnel bi ñu ñi nga xam ni ñooy ñooy ñooy xaru daal non xam nga liste nationale du daw làqatu xam nga xam nga Mor gis nga liste député bu ñu koy defar président mooy toog moom mooy xool que ni man kat Mor Touré mii naa ko dugal liste nationale. parce que il parle mën na wax et puis bu fa demee mën na ma amal njariñ mën na amal réew mi njariñ xam nga même député nekkul nii kii dafa sonn ci parti bi rek wala nangam dafa war a nekk député est ce que même boo ko investir tam sonn ci parti bi sax est na amal na réew mi bi njariñ ak assemblée nationale. léeg-léeg nga jël benn nit ñu ne nommé nañ ko conseil économique social wala nommé nañ ko au conseil nommé nga ko rek par décret salaire am lay jël ak carburant di ko lekk mais dëkk ba duñ ko xam amul leen benn njëriñ député peuple bi da lay sentir mu leen ni Mbàkke am na député bu dee njaareem dip ñëpp xam ni kii député la bu njëkk député euh, par social yi wala député yu njëkk ya comme un ministre parce que dafa am lu ñu doon incarné mën a wax mën a solu am xam mais député yoo xamante ni sa carburant euh, euh, mois bi beneen carburant mën na koo fekk si sa salaire weer bii beneen salaire mën na koo fekk si wax naa ko sànq ci benn émission c'est-à-dire politique dëgg du am kër du am kër du am xaalis du bari xaalis parce que lim am fekkee nit ñi nga koy jox waroo bari xaalis en parce que grand Iba Gueye nekk na fi ministre de SONES de sport nekk na ko ba régime partage daanu mës am kër kër bàyyam la dëkk bi euh, deuxième Wade ci la Iba Gueye am kër donc te boo xooloon ñi ko toppoon di ko jàppale ñëpp ay cadre lañ woon Mbàkke gépp toppoon ci ginnaawam mu mu dirigé dëkk bi 23 ans donc loolu mooy politicien mais politicien bi léegi boo xamante Seydi Diakhaté ngay ànd ak moom nga dugg ci politique xëy tabax juróom benn kër yor oto yooyu yorutoon donc loolu bu fekkee noonu la nit ñi di politique daanaka réew mi ci gax ci gasax la jëm parce que nu mu tuddati loolu taxul toon ñu ñu ñu ñu ñu jox réew mi. mooy dernière question euh, pour man am noo leen gisee seen taxawaay waaw mais xam nga loolu c'est compliqué xam nga euh, tey boo xoolee honorable député yi fi ne. Euh, euh, ñu ngi dem ci euh, kii député sortant li des bariwul xam nga boo toogee ba mu ay élection yoo xam ni un mois cay des wala jeex na ba pare ngay ngay ŋàññi sab nawle du lu rafet donc tëkk bi nga xamante ni ñooy population Mbacké ñoom ñoom xëy na sentir nañ député yooyu wa il a sentir mais man Angloma il a mal placé may bëgg maanaam ni def nañ wala defuñ ñoom bu ñu defee waa dëkk bi xam nañ def nañ dañ leen di invité danañ faluwaat bu ñu deful waa dëkk bi dañ xam ni ñoom defuñ mais samay sœur a ci nekk ak samay frères yoo xamante nii vraiment maa ngi leen di sant ndax euh, dirigé dara tam nekk assemblée di dem di jaabante di ñëw rek représenté fa Mbàkke loolu titre la ci man kon vraiment mënuma leen a ŋàññi donc dañ leen di ñaanal rek suñ borom yàlla bu fekkee dafa gënaat ci ñoom tam yàlla def mu tombewaat ci ñoom. bu gënul tam keneen kii ñëw yàlla na moo gën ci moom. dafa mel ne sunu waxtu euh, lañ ñu cërale ci waxtu jeex na mais nag euh, Euh, xam naa la da ngay politicien boo xam ne nii da ngay da ngay dégg léegi génn foo xam ne nii pour raawal moo tax ma posé la question nee na boo gisul sa bopp ci législatif yi nooy def parce que dana confirmer léegi ne sa ñàkk a ànd ak euh, waa Mbàkke mu ngi feeñ ci parrainage yi nga xam ne ñoom joxuñu la ko Malick Fall moo la ko jox tëb leen fi boo leen ko dee jébbal tamit noo leen koy jébbal. xam nga li may sante waa Mbàkke di leen gërëm man te xam ni am naa fi doole am naa fi poids gëj naa ci élection locale yi ñëwuma. pourtant bi ma ñëwee ci saal bi ñëpp ma nuyu booy yëpp ma nuyu am na ci ñoo xam ne dañ ma doon tàccu bu fekkoon dañ laa jéppi da ngay ñëw ñu yuuxoo la mais bi ma ñëwee ci toog ci taabal bi am na ci ñoo xam sax dañ ma doon tàccu parce que xam nañ ni man li may incarner man li may bañ dëgg la doon ci man man du ma tricher. Gallo bu ñu ko investir woon ab du Abdou ab Ablaye waat ni ma toppal ci ginnaaw man la topp ma ci ginnaaw man loolu laa gëm ci ci ci YouTube bi nga koy dugal après man loolu laa gëm cest à nit da ngay gëm li ngay wax da koy gëm waaye doo ragal. ay bu ma waxee lii ñu dàq ko am na ñoo xamante ni dañ ni woon dana campagne ci ndax bu campagne ci wul ñu sanctionné ko man ko may sanctionné ba may sanctionné boo toogee ba ñëw ci pouvoir bi di ma sanctionné euh, euh, yow ba man man yow Mor Touré ñii toog di xam na ni élection 2012 Wade def jox nañ ma million yu ne pour ma transhumer dem PDS APR ma PDS ma bañ léegi ñu ne ñëw ba ñëw ci euh, pouvoir bi bi cere ji neexee yëpp yow ñu ñu sanctionné la ci kon sanctionné yomb di donc man nee naa la APR du ma ci duma ci cere jii am yàpp am meew am am am lépp maanaam du ma maanaam ca dugub ja bañ koy ji ca tool ba ca laa ware ba mu nekk mbool léegi nag euh, neex na sii di mii ma ngi koy mos keneen ngi mos loolu man loolu lay tiitaroo bu ma sañoon mu gën a yaatu bu ma sañoon euh, mënuma tam euh, pare tam te te te remercier wu ma suma frère Baara yi donc ay ñoom Papisco ay ay Serigne Mbacke ay ay jeunes yoo xam ne ñu ngi bokkoon APR am courage yu def liste dem dem dem dem dem dem élection nañ gën a préparer ñu génn def soudé pour nu mu tëti bi ñu mën koo téye pour mu pour mu pour mu am conti continuité. waa xam nga xam nga xam nga loolu xam nga yeewi askan wi euh, tey boo xoolee euh, euh, boo xoolee am na benn benn challenge parce que tey boo jëlee boo jëlee deux jël jël jël jël quatrième xam nga danga nga ma président recevoir na sa ñaari nit Fatick mais Yewwi Askan xam nga kan la jël maire bi ak di quatrième ba c'est grave man li ma lay politique xam-xam laa lay wax. analyse politique la. docteur Fall Mbaye moo jël quatrième Abdou Mbacke Ndaw moo jël deuxième nga ni ma nga wax ma ni ma recevoir na ñaar ñaari nit ñoo xamante ni nii élection yi bañ demee septième lañ jël kenn ka sixième jéemoon a am deuxième ba quatrième ba moo gën. non dama ni pour euh, yeewi askan wi. non marqué nañ ay points ci li ma la wax noonu. mais législative ñu wax tiitalu moom euh, xam nga moor xam nga ñii man. waaw attends mais mais boo nee ñun est ce tiitaluñ ñu. te yeewi askan wi gagné département bi. Ah. élection yi passé ñun ñu gagné fi ab commune. jël de ah donc euh, kooku boo toogee yow naan non non non président kon Macky Sall sax ma déggee naa am englobement bi dafa dafa day xaru c'est-à-dire bi ñu nekk ci baaxagul. exemple bi ma lay jox ñun élection nee nañ am nañ 8000 waa Mbacke maire bi gagné 8000 waa Mbacke bu versé woo ci ci ci ci ci département Matar a gagné moo war a gagné kon du électorat boo contrôlé bu doon électorat boo contrôlé boo amee 8000 waa département 8000 waa yooyu da ci da ci da ci figuré bu ci figuré Matar gagné. kon li la jox huit mille yow ba nga gagné li tax jox ko département bi il faut que ñu waxante dëgg te bàyyi suñu caaxaan yow tam. waaw euh, euh, na looy tàggatoo euh, ci waxtaan bi nga xam ne seqoon na ko waaw am am am li ma commencé woon rek man damay sant yàlla damay sant yàlla di sant yonent bi di sant Sëñ Tuubaa di sant tam sama sëriñ si Abdou Mbacke borom daa raxmaan di sant sama sëriñ sëriñ Modou Abi Mbacke di am mbégte contentement bu mag gis nga. Euh, siid moor kër gii nga may nga may introsé tey booñ ko doon lim ci Mbàkke mën naa fee dugg sama ñaar fanweeri kër yi frère fanweeri kër yoo xam ni koo ci ma dugg sama kër frère lay doon kooku kon am na lu représenté ci dëkk bi wax naa la ko keroog su ma maam mët sekk bi muy dem 14 18 ak 49 quarante këram gee mu am ci digg Mbàkke ku maam représenté wul dara ci dëkk bi doo ko am donc nit ñi il faut que ñu xamante man xam naa samay waajur xam naa fi ma bokk xam naa fi ma sasoo moo tax li ma gëm rek laay wax nit mënu maa xoqatal kii dugg nañ ay combat politique yoo xam ni ba ciy combat gone goo ne woon jàmmaarloo ñooñ duñ jàpp jàmmaarloo yow. moom mii itam toog ak Sidi li ma la waxoon keroog rek laa lay wax donc euh, Mor dama koy dafa am ko ma wax ma ne ko wool Mor mu ñëw parce que il est courageux donc tey am na nu mu doon position bu mu doon doxee tey am na lu nekk ci presse mais gëm-gëmam lay doxee yow mii man ba ma la xamee ba tey ci Sylvie Sanson laa la xamee ak gëm sa bopp. donc maa ngi sant euh, sama mag bi nga xamante nii mooy Ibba mais toog ak ñoom ma xëri fii laa dogoo ñi ñëpp samay doom lañ donc di am mbégte contentement bu mag ndax li am solo rek mooy moor mooy dëggu man li may wax li tax ma ñeme ko te nga jàkkaarloog man yow moor di sama mag di journaliste tam di sama mag am na ci loo xamante nii bu ma koy wax mën nga seede ni dëgg la dëgg gu wér péng parce bi muy jàmmaaloog Iba euh, Moustapha Cissé Lo di xeex moom ñii nekk maire tey keroog Cissé Lo lañ xe lañ fekki woon parce que jàppoon nañ ni doole ji Cissé Lo ko yor te pourtant après doo ci man lañ mujj ñëw ñu investir leen ñu nekk maire maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam